jëye xew ci marché mbaare ci madiana neki ci dëkk bu sel bi di touba bayzal di ab dawalkatu saret moom la ñuy ay paaka ba mu ñak bakanam ki def mbir mu ni mel nak ñu woyé dawul xaré jëf ji ni mel nak mi ngi am ginnaw jappanté bo xamné doxon na ci digënté ñaari ndaw yi nga xamné ñi ngi am ci lu tollu ci ñaar fukki at fayna ma bor bi ne ma damay nawéti mana jéggé jéggantale bi sama jàng bi ma nak lu mu doon mu ma bajjan mëna sa doom ji fi fay la lañ rey li la ci mu metti ma lool nag waaye nañ indi kewaat gone yi nañ yar gone yi nu ñu jur njaboot gi nañ yar njaboot gi yaruñu gone yi de te mag ñi de jooyi gone yee ko gën yaruñu leen nag bari na xale yu ne fii di taxawaalu kenn xam ku seen day maa seen baay ñu ngi fii buñ màggee nii la ñuy mel. bu ñu sukkandikoo ci góor gi nga xam ne nag ci gox boobu la nekkee mi ngi xamal ne ki nga xam ne moo faat Baye Zal te ñu koy wax dawul xare. ku ñu ràññee la loolu foofee ca marché Mbare ci Madiana mu ñuy xamal ne mbooleem dawalkatu sareet yi nga xam ne ñoo fa nekkee xamee nañ ko ci def yooyu la ñaawteef. bu ñu nee Madiana baaxuñu gone yi baaxuñu nañu segg gone yi baaxul ci seen biir ñu génne ko ñoom ñiy liggéey ñu baleen fi mais ñoom ñëpp xam nañ ah ñëpp nañ gone yu bon ci seen biir nañu ko génne dawul xare sàccee liggéeyam ci sareet lay yéeg di sàcc di wàcc nañu ko wàcce sareet yi mënu leen buñ ko naree rey mu bàyyi sareet yi ah mais bu ñu yoree ay ci seen biir mu yéeg ci sareet yi di wàcce di ñëw bu rayee ci biir sareet yi du leen bett wasalaam. mbir yi ni mel nag bari lool luñ koy dégg ci marché mbaar ya foofee ca Madiana mu ñu sukkandikoo ci góor gi te mu doonoon fa ab chef de quartier mu ñuy xamal ne askan rek ñoo mën a booloo ngir xeex ñaawteef yi nga xam ne ñu ngi koy dégg saasu ne foofu ci Madiana. ay yoon daf yi am. fi ray nañ fi nit daw jéeg paaka la waji beuti fi ray ko fi dega yam ci Madiyana gii bu police do nga du fi jógee bu police do nga du fi jógee man adam Fall délégué de quartier maa la ko wax gis nga mbolo mi nek fi di fi liggéey ñoko fi mëna jëlé fukki ak juroom xeex naa ko fi gor ñi ma fee talal tank ku fi taxaw def lu jëru tëj la ba jóge fi dem salum di liggéey li sama ginaaw la fi am man bo fi nekkan formé mbolo mom bu ñu nangoo kenn du ko fi def askan wi ñoo ko fi mën a jëlee mais police du ko fi jëlee gendarmerie du ko fi jëlee. ginnaaw nag bi ñu ko faatee moom Baye Zal ki nga xam ne moo def wala ñaawteef dawul xare borom saret bi nga xam ne ñoo fa nekkoon jot nañ ko dóor ay metti ginnaaw loolu ci lañu woo sapeur pompier mu jël néew Baye Zal yóbbu ko ca hôpital Matlaboul Fawzeyni ki nga xam ne nag moo di dawul xare police teg na ko loxo waaye nag gaañu gaañu yi métti yu mu amee moo tax jamono ji moom it ma nga ci hôpital Matlaboul Fawzeyni